sa njekkikaay day àgg suuf dana ko wax léegi sax moo tax mboole ci wa bay na sajdatayni ak diggante ñaari sujjóot ñi maanaam boo toogee diggante ñaari sujjóot baa nga toog di taaye ak taaye ju mën doon am na toogin woo xam ne sopp nañ ko te mooy ni mu bëgg a wax waxuwa moom ay yufdiya mooy mu àggale da nga ne mooy mu féetale bi wari ki xii ci poojam al ay sari bay càmmooñ beneen arab bi jëm ci suuf ba yaxruja te muy génne rijlay ñaari tànkam jëm ñi xam mboole seen min jaani di fi ci wetam nga al ay mën ngay ndeyjoor wayen si bati muy samp xadamawoo ndëggum la al yum naa lay ndeyjoor wa baatinu ibhaamil yum naa te biir baaraamu dayu ndeyjoor ba ilal ard jëm na suuf wa yes nii te muy lem wa yes nii te muy lem al yusra tànkum càmmoñ ba wa yadaxu te muy teg kaf fay yaari dengam xalaa faxi day ci ko yaari luppam dafa wax ne ñii sopp nañu boo dee toog di taaya ak taaya ju mën di doon ak boo toogee diggante ñaari sujjóot ñi nga toogee toogaay bii sopp nañ ko ca te loolu mooy sa njekkikaay loolu càmmoñ day àgg suuf bu wér sa ñaari tànk ñëpp nga génnee leen ci wetu ndeyjoor gi soo génnee woon ñaari tànk ñi ci wetu càmmoñ gi gis ko sopp ba tey boo toogoon ci say tànk nga xam ne sa njekkikaay àggul suuf ba tey des ko sopp kon dañoo bëgg sa tànk yëpp génn ci wetu ndeyjoor su ko defee nag bopp càmmoñ bi nga bañ caa toog bañ a toog ci benn ci ñoom ñaar su ko defee nag tànkum ndeyjoor bi itam nga yëkkati ko te baaraamu day ba samp jëm suuf tayaamunu sopp nañu ndey jooru bisalaami ci sëlmal ba almafroodi ba di buñ farataal li kulli musallin ñeel jëpp aji julli waxuma te moom ay yusira mooy mu junj bi rasi yi ci boppam xubaalatu wacc yi ci njëxul kanamam waaye tayaa mën a tamuy jooru bi ci moom xalilan tuuti bi xaay suturaa ci foo xam ne def na gis safxatu wacc yi pegg kanamam nga bokk na ci ñu sopp ci julli asalaamaaleykum ji nga xam ne farata la boo ko dee wax nga xaw a du mooyu tuuti jëm ci sa ndeyjoor bokk lu féete gannaaw di seen sa pegg leex ko dañu bëgg boo ne asalaamaaley lépp nga jëm xibla bu desee kum ji nag ji nga xaw koo du tuuti ba ku ci gannaaw di seen sa pegg leex waaye nag noonu nga xam ne moom ngay wëlbatikoo matuta ëppal da koy yemale rek xam ne bi xay sutura bi xay sutura ci foo xam def na gis safxat waccihi pegg kanamam nga wan nazaru sopp nañu xool ilaa mawdixi sujoodi jëm ci bérébu sujood ba fi xiyaamihi ci taxawam dane soo taxawee dañoo sopp say bët ne jàkk fa nga xam ne fa ngay sujood rek bañ ko weesu loolu da ko yemal ci boo taxawee waaye dañoo sopp rek boo dee julli moom faaw say bët ne fa ngay nga xool foofu te bañ xool feneen moo xam taxaw nga moo xam taxawoo wa mubaasharatul ardi ak jonjonteeg suuf aw ma wala loo xam ne tumbituhoo dana ko saxal moom suuf bul wàcc ci kanam wala ka fayn ak yaari dénk nañ boo dee julli fa nga dëpp sab jë ak fa ngay teg say loxo boo dëpp booy sëggee du sujjóot mu nekk suufas kese bu dee bitti nga xam ne ngay laal sa basan wala sab mbaa sab sa jaar dañu bëgg ni nga koy lale fa nga dëpp sab jë ak fa say loxo di tegu boo sëggee di sujjóot nekk soo suufus kese fa nga taaw nag moom bu doonee basang wala der itam moom ba tey baax na bu dee jàkka ji ñu far ko lal ba maase du aajoo ngi tibb suuf di indi ngir def loolu ñu sopp say boo rek far yam ci noonu wal machi ak dox ila salaat jëm ci julli ga bi waqaarin ànd ko weggu wa sakinit ak dal sopp nañ boo dee wéeru julli ji maa boo jëmee ci julli nga ànd ak yaru xam ki nga jëm ci moom ni mu màggee xam doo daw ndax daw day mën ngaa ñëwee ki nga jëm ci moom bu bañee ñu raw la nag mën ngaa gaawantu rek waaye gaawantu bokk ta daw bu mu àgg ci daw moom bu mu àgg ci xel moom bëgg ñu mu àgg ci ak yemoog sàppe ya bokk na ci ñu sopp lool sàppe yi ñu koy yemale mooy ñu fexe ba sàkk sàppe yi jub te rajj bala ñoo bu njëkk bi day jub ba na xocc ba noppi tam fees ñu door a tàmbali beneen wa tarku tasmiyati ak bàyyi wax bismillahi fil faridati julli farata wax ji gën a woo ci fiq maalik moom mooy sib nañ nga julli farata ba noppi wax ca bismillahi rahmaani rahim moo xam ca faatiha ja moo xam ca saaru la boo dee julli naafila nag moom ñëw ñu sopp nañ ko de dañ ne dagan na ca mu mën nga ko wax moom boo ko bëggee wa zikru ak tudd yàlla baxadu salaam yi ci gannaaw sëlmal mina salaati ci julli ga bil adkaari ci sikkar ya alwaaridati ka xiraati ayatul kursi yi ni ki jàng ayatul kursi yi wa tasbih ak sabal salaasa ñett wa salaasina kon weer wa taxmid ak sant yàlla salaasa ñett wa salaasina kon weer wa takbir ak kabar salaasa ñett wa salaasina kon weer mi ati ak mot lee téeméer ba bi ci wax ne laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jan aji la ñeen ko loxoo ñeel na ko almulku nguur ga wala xoo te ñeel na ko alxamdu cant ga waxoo te moom xajiru mooy aji ci bépp mbir nee na boo salmalee am na xeeti tudd yàlla yoo xam ne bëgg na nga def ko niki jàng kursi yu benn yoon ndax la addis boo koo xam ne bu saa yu julee bu salmal dana jàng yu benn yoon dara doxul diggante mu àjjana lu may am nañu ca boole ci benn net li boole ci xul kon boo defee loolu kon nga teg ca subhanallah fanweeri yett alhamdulilah fanweeri yett akbar fanweeri yett su defee muy téeméer bu manqué benn nga mottalee ko nag laa ilaha illa la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun benn yoon defee muy téeméer faslun li benn dog yukrahu def na sib adduha u ñaan baada takbiratul ihraam yi ci gannaaw kàbbaru armal maanaam boo xasee wax allahu akbar armal sib nañ nga wëlbati ko fa ñaan dara ci diggante yow nay jàng faatiha mbaa dara wa fi rukkoo ak ci rukkoo boo jàppee ci sa yoon sib nañ foofu nga defa fa ñaan dangay sàbbaal képp yam ci wa fi tashahudi ak ci taaya ba al awali bu jëkk taaya bu jëkk bi ba tey dangay am rek ci abduhu wa rasuluhu waaye doo ci julli ci yonante bi doo ci ñaan doo ci ñaanee ñu sib ko wa taxawudu ak wax axudu billahi wal basmalatu ak wax bismillahi rahmaani rahim fil faridati jullik farata jullik farata moom sib nañ nga wax ca axudu billahi ba bismillahi moo xam ca fatiha ji la moo xam ca saar wala war sujjóot ak sujjóot xalal bisaati ci ab tappi wala min diili akub sarbet wanax yi ak lu mel ni moom waxalaa tarafil kummi ak ci catul lafa mbubu dañoo soppoon boo ñu sujjóot sab jë jonjoonteeg suuf say loxo yi ngay rëppeel mu dend ak sa bopp mu jonjoonteeg jëmmi suuf kon nag nga bëggul la neex rek ba tax nga sujjóot ci ab wala ab wala sa lafa mbubb nga xam ne moytu tàngaay taxut moytu sedd taxut loolu sib nañ ko fekkee nag nga foofa dafa tàng jër mbaa mu sedd guy nag mbaa mu ñagas lool nag moo tax nag mbaa ñu far lal foofa benn ba maase mel ni ki jàkka yi ñu lal tàppi moom waa duñ ko sibati ndax loola du jar tibb suuf di fa indi bu dee lu mel ni jàkka fekk ñu war ko ba mu daj wal iltifaatu ak gestu li xayri daruratin ñeel lu du lor di julli di gestu dañ koo sib te soo wañar bi ko nga xam ne say tànk wañar bi ko ne sax léegi jublootoo xibla moom mu yàqu waaye nag jëmm ji doonte kanam bi lépp wëlbatiku ne waaye jëmm ji wëlbatikul rek moom ci sib la yem wa tashbikul asaabihi ak ràbbale baaraam ya wa farqaatuha ak seen foq ràbbale baaraam yi wala di julli di ràbbale say baaraam mbaa ngay foq say baaraam dañ koo sipp wal xabas ak faye bi xaatamihi cib jaaroom aw bi lihiyatihi wala bi sikkimam di julli di faye sab jaaro wala sab sikkim mbaa leneen loolu ba dañ koo sipp wa taxmiidu basarihi ak gëmmal ab gisam wa rafahu ak yëkkati gis ba ila samaay jëme asamaan julli di gëmm te amul lu ko waral bu fekkee dangaa bañ a xoolu araam mbaa bañ fat bañ loolu kon këmb ga lu la ba ba tey ko di xool ci kaw ba tey loolu taamuñ ko nga yëkkati ko di xool asamaan di julli loolu taamuñ ko ba dambul xadamayn ak tàpp yaari ndëgg ya maanaam di julli sa ñaari tànk jege mën nañ laa jéng loolu dañoo bëgg ñaari tànk nga yàng ko ñu xaw a sore tuuti booba bokk ñu jëddi ak teg loxo ba xalal xaa sirati ci sàllwet ga jatu lañ koy wax ci wolof ba jëlee sa loxo teg ko ci sa sàllwet loolu sib nañ ko ci julli wa tahdiisu nafsi ak waxtaan ak boppam bi umóori duniyaa ci mbiri àdduna di julli di jëmale sam xel ci mbiri àdduna loolu dañ koo sib te wax ne ne sax mm, loolu lay duna ci tuyaaba mooy la nga jot a teewlu ci julli ko rek waaye li sam xel jëm ci àdduna moom kenn la ko mënal tuyaaba soo demee dem nag ba xamatoo dara dara dara ci julli gi amul loo ci mën a takk ci moom day aajo nga dagg koo te tàmbaliwaat wa lu shay ak def dara wala yenu dara bi kummin ci lafu mbubb aw famin wala gémmiñ maanaam di julli def ci sa poos mbaa sa lafu mbubb mbaa ci sa gémmiñ loo xam ne bu ci gémmiñ gi teewu laa mën a wax baat yi te nekkul luy seey mel ni tàngalo yooyu nga boobaa day soppiku lekk dal yàq julli gi mën na nga seex rek ab dërëm wala aw donj waaye yàqul la mënoo gee wax mbaa la nga fas ci lafu mbubb wala yooyu yooyu yëpp daal naree jax-jaxee sam xel rek ñu sib ko dañoo bëgg rek boo dee julli lépp nara jax-jaxee sam xel nga tàggoog moom hmm. asalaatu ak julli bi tariix man ci yoonu koo xam ne yam yàmmuru dana romb benn yoon yi diggante yaari loxoom maanaam ngay jullee ci foo xam ne aw yoon la des fay romb rek xam nga ne bala ngaa sëlma dina am ko fi jaar waaw mbaa loolu lañ ci gën takk daal su boobaa loolu sib nañ ko ngay jullee foo xam ne kenn du fa romb wa qatlul burxoosi ak rey aw fel wal xamlat ak aw teeñ fil masjid ci jàkka ji maanaam bi jàkk ji nga rey aw teeñ wala fel ba tey loolu sim nañ ko faslun tàbbatunu dina yàqoo asalaatu julli ga bi tarki shartin ci bàyyi ab sart min sharaitiha ci sartam ya maxa qudrati ànd ak man xale ci moom ànd ak kàttan xale ci moom waaye mooy man gi rek daa wax ne sart julli benn boo ci bàyyi te nga xam ne yaa ko tey te mën nga ko boole ci julli gi day yàqu day mel ne kon bu fekkee danga koo fàtte rek mbaa nga tële ko julli ga du yàqu waaye nag am na ci koo xam ni moom boo ko fàtte woon ni ki laabu ni ki jàpp bu la waree wala tiim nga fàtte koo def itam ba tax nga julli tax julli ga du baax lu mel ne sàng awra nag wala ñàkk julliwaale sooy boo ko fàttee ba julliwaale ko du tey julli ga baax wa bi tarki takbirat ihram ak ci bàyyi kàbbar armal maanaam bàyyee ci farata julli benn niki bañ a wax allah akbar julli gi yàqu aw niyyati wala yéene aw xayriha aw xayrihima wala kudul ñoom ñaar min arkaaniha ci ay ponkam maanaam boo dee julli te yéene woo bàyyi nga farata kon julli gi day yàqu wa bi tarki sunnatin ak ci bàyyi sunna waahidatin bu di benn xam dan ci tey xalaa ahadil xawlayni ci benn ci yi waxee boo toppee wax ji yoo xam ne boo bàyyee sunna te tey ko julli gi yàqu kon nga wàññiwaale ko fii waaye wax jë gën a mooy julli gi du yàqoon wa bil kalaam yi ak ci wax li xëyri islaaha ñeel lu dul defar julli gi saa yoo dee julli génne kàddu goo xam ne bokku julli gi te yaa ko tey rek moo xam wax ji wér moo xam du wax ni ki walis julli gi yàqoon wa bil fi'li ak ci jëf alkasiir ji aji bari min xëyri jinsi salaat ci lu bokkul ci xeetu julli ga maanaam boo dee julli jëfaale ci julli ga lu bari lu ci bokkut xam bokkul sax ci xeetu julli far moom la misaale kalmashi ni ki dox ak kasiir guy aji bari ni ki julli di dox rek dem ak a dikk ni ki léeg-léeg nga dox ba ci kanam nga arrière ci gannaaw dox bu bari rek julli gi yàqu mooy xib la ndax dox boobu bokkul ci julli bi xilaafil xalili ci wuuteeg aji néew jiddan lool kalmashi ni ki dox li sutreet ni jëm ci sattir aw furjet wala ab yaatu yaatu dina bu fekkoon ne dox nga ci biir julli waaye la nga dox bariwut ni kii dangaa séen fee dangaa gaawoon armal àggoo ci sàppe sa dox nag far àgg ci sàppe sa mbaa dangaa armaloon fii ci biir sàppe si gannaaw bi nga séen ci sa kanam sàppe sa ci sa kanam foo mën a dugg nga daal di dox àgg ca dugg ca loolu lépp moom du wàññi dara wala xam sa ci ak bës aw yaram mën naa nekk bës mën naa nekk bomb wa xàkkil jasadi ak wokk aw yaram xàkkil jasad mooy wokk aw yaram yaari mujj wax mooy di julli di bës saw yaram mbaa ngay julli di wokk saw yaram bu yàq julli gi bu fekkee ni bariwut lool ba tey nag soo ko defee te aaju woo ko woon maanaam bés ki mbaa wokk gi da nga ko def ngir dalaa neex waaye aaju woo ko wa néew boole ci kon ñu ko su baree lool lool moom daal di yàq waaw su fekkee nag eh, bariwul nag moom du yàq kon nga seetlu ne di julli di bës saw yaram mbaa nga di ko wokk su fekkee du loo xam na nga ko aajowoo muy ngànt ci yow kon des koy sib doon te bariwut du tee ñu ko dañ ko waxee ne bul ko fàtte su baree lool lool julli ko daal di yàqu wal akulu lekk wa shurubu ak naan mu butilut ak yàq ak mën di demee ne boo dee julli lekk naan moom moo xam yaa ko tey moo xam tewoo ko doonte fàttee taxit nee nañ wax ji gën a wóor julli gi day yàqu wa bi siyaadati fi'lin ak ci dolli jëf min jinsi salaat ji bokk ci xeetu julli ga xam nañ ci tey aw jaxli wala ci réer mutalaxan ak nu mën di demee maanaam boo dee julli yokk ci julli ga loo xam ne ci xeetu julli la bokk te yaa ko tey nit nga julli rukkoo ñaari yoon mbaa su jot ñaari yoon mbaa sax ñàkk ko xama ko waral nit nga julli rukkoo ñaar yoon defe woon ne noonu la yëpp julli gi day yàqu mu des na bu fekkee la nga yokk ci xeetu julli bokk waaye tey mbaa umpale waralu ko maanaam njuumte rek ko waral su boobaam baree koy baree koy tax a yàqu moo tax mu ne wës sax woon bu dee njuumte it mu yàqu in kasura ndeem bari na waaw maanaam bu baree rek bu fekkee juuma ko waral bu baree lay doole yàqu bari gi nag lay bëgg a wax waxoo moom rakk xataani mooy dolli ñaari rakk fi sub fi bu dee ci suba wa arbax rakk xaat am ñeenti rakk fi zuhru ci tisbaar wal maanaam julli boo juumee ba yokk ca lu toll liwub rakkaam ni ki julli suba doon ñaar nga juum ba yokk ko ñeent mbaa tisbaar nga def ko juróom ñett mbaa takkusaan mbaa gee yooyu ñeent nga yokk ko ba juróom ñett ay moom la waxul foofu moom dañ caa wuute ñu wax ne mook suba ñoo yemoo ba ci yokkee ñaari rakk rek mu yàqu am ñu ne déedéet mook ñeent rakk yi ñoo yemoo li fi yokkoo ci ñeent du yàqu waman mm-hmm. salla ku julli salaatan julli taamatan gu ejmat ataagoog dikki na xalaa nizaamiha ci aw nos yi nam waxoote moom laa yax defa du xàmmee alfarda farata mina sunnati ci sunna wala sunnata du xàmmee sunna itam minal mustahab bi ci lu ñu sopp faqi la waxees na ne inna salaata wa naka julleem nga baatilatun aji yàqu la wa saxiix wax ji nag mooy annaha naka julli ga saxiixatun aji wér la in axasandeem jële na wa soxaa meloon wa an ci aji xam Mhm. dafa wax ne nag bu fekkee julli gi nit mën na koo jullee nañ ko war a jullee noonu nga xam ne boo dee xool na mu jullee doo ko xeebat ci dara ci nam defi waaye bu noppee boo ko laajoon lan moo ci farata ak lan moo ci sunna du ci xam dara dañ caa wóote am ñu wax ne ko julli du baax am ñu ne baax na mu ne wax ji gën a wóoru mooy baax na bu fekkee ne noonu mu jullee rek borom xam-xam bu wér moo ko jàngal mbaa mu gis mu defe noonu mu roy ca moom wéy ci di ko noonu rek noonu baax na fas loolu sujoodu sahwi sujoodu jamoo ci sunnatun sunna la li naq ci sunnatin ñeel wàññi sunna mu akkalatin suñu suñu feddali moom sunna ni salaat ci ci sunna julli waxee te ñoom lañ daa wax ne daa am ci julli gi ba wàññi sunna daa am koy sujootale ñu koy tuddee sujootub juum mu ne moom nag sunna bu ñu fedd lañ koy defal sunna ñu fedd li julli nag mooy yu mu lay wax mu juróom-ñett qiraatuma siwa umil quraani moo di jàng lu bokkut ak fatiha rakk bu njëkk rakk bu ñaareel boo weesoo fatiha la nga cay tegaat mu saar mbaam manqué ko ba tey baax na loola sunna la wal jëxru ak biral ci fañ la ko digale wal israaru ak yelu ci fañ la ko digale wax ca kaw fañ ko diglee ak wax ca suuf fañ ko digle lu ci nekk sunna la wat takbiru ak kabar siwa takbiru ihraam mi rek kabaru xarmal allahu akbar yi ngay wax ci julli gi lu bokkut ak bu nga njëkk a wax rek bu nga njëkk a wax mu farata la bokkut ak moom nag mooy doon sunna wa tahmidu ak wax sami allahu liman hamida loolu la ci jublu moom itam sunna la bu fadliku wa tashahudu ak taaya ba al awal ba aji jëkk wal ak jataay ba al awal jëkk la hoo ñeel ko maanaam taaya bu jëkk bi akub jataayam ci nekk sunna bu dëgër la wa tashahudu ak taaya ba al axiru ba aji mujj taaya bu mujj ba itam noonu noonu mel fala sujjóot de sujjóot li tarki sunnatin ñeel bàyyi sunna xayri mu akkaratin sudul suñu sudul suñu feddale soo bàyyi sunna boo xam ne sunna la waaye nekkul bu dëgër kon du jar sujjóotal ka takbirat niki ab kàbbar waahidatin bi benn xayri takbirat ihraam bul kàbbar armal maanaam dëgg la sax allahu akbar bokkut armal sunna bu dëgër la waaye boo ci bàyyee benn dong du jar sujjóotal bàyyi ci ñaar mbaa mooy moo jar sujjóotal walaal tarki fadilatin du jaag yoon ngir bàyyi ngëneel kal xunoot ni ki xunoot fii suppee ci suba maanaam bàyyi ngëneel julli gi du tax a sujjóot boo ko sujjóotalee sax julli gi yàqu ni ki xunoot dañ koo sopp rek boo ko bàyyi suba tax laa sujjóot julli gi yàqu mooy fa in sajada ndem sujjóot na laxumaa ñeel leen ñoom ñaar batala kon yàqu salaatu ko julleem nga benn allahu akbar boo ko bàyyee tax laa sujjóot wala wala lu ñuy sopp ni ki xunoot julli gi yàqu wala li faridatin du jaag yoon ñeel julli farata kàttaaki biiral ihraam ni kàbbaru xarmal nee na boo bàyyee farata moom sujjóot du ca ndax sujjóot du ko mënta defar ni ki boo bàyyee armal wala yu mel noonu ni ki rokko mbaa sujjóot sujjóot jamono bi du ko mën a defar aw li siyaadati xawlin wala ñeel dolli wax wala ngir dool dolli wax nga xam ne moom bëti luñ juddul aji yàq li salaati ñeel julli ga kalkalaam ni ki wax alxalilu ji aji néew saxwan ci joom aw fiix ni wala jëf xëy na moom bëti luñ juddul aji yàq kasiyaarati rakkat ni ki dolli benn rakk fi rubaahiyati ci julli ñeent rakk saxwan ci ñoom te maanaam nag daa wax ne doo dollee loo xam ne wax la ci julli ga waaye du yàq julli ga mu ne lu jar sujjóotal waaye liñ miin moo ci yokk Maalik mooy boo juumee boo wax ci julli gi ngay sujjóot baax de salaam ba tey li mu wax ne julli ñeent rakk ci misaal boo ci dolli woon benn rakk du yàqu du yàqu waaye bu dee fiq Maalik moom boo ci dollee benn nag mbaa ñaar mbaa ñett dañu bëgg nga sujjóot ba xam ne salaam ndax ndolli bi nga ndolli wal insiraaf ak wëlbatiku alxarib bi aji jege mu ne salaati bàyyi ko ci julli ga ci ñoom te maanaam bu fekkee da ngaa génn ci julli gi te ndekkee julli gi kat noppiwut ni ki nga fàtte wax asalaamaaleykum gannaaw ba nga moyee tuuti rek waaye yàggut tëjoo fa nga toogoon kooku da nga julliwaat xibla daal di wax asalaamaaleykum waaye na nga sujjóot ba xam salaam boole ci waaw su fekkee jotu woon mooy xibla nag lu mu néew néew kon nga jëkkandiku waat wax asalaamaaleykum rek te du aajoo sax sujjóot wa maxallu sujjóot yi sax yi bérébu sujjóotu la muxtalifun aji wuute la parce que yaa def ndolleen fàq dong yes sujjóot la ñeel ko ba xam ne salaam yi gannaaw salmal wa naqsu wàññeen fàq dong awi naqsu wala wàññeen wa siyaadat ak ndolleen yes ju de sujjóot laxumaa ñeel leen ñoom ñaar xablu salaam njëkk salmal waaw nee na sujjóotu jamooc waxtooñ koy defee day wuute ndax bu fekkee dangaa yokk kese kon gannaaw boo jullee ba taaya ba salmal ngay def ñaari sujjóot ñi dellu ba amuwaat taaya dellu taaya waat salmalaat daal laa bëgg a wax fekkee dangaa wàññi kese wala nga wàññi ci wet yokk ci kon xablu salaam lay doon mooy da ngay julli taaya taaya ba mu des asalaamaaleykum nga sujjóot ñaari sujjóot ñi daal di wëlbatiku nag taayawaat door a salmal moo tax mu ne wasifatuhu aw meloom sajdataan ñaari sujjóot la yu kabiru dana kabar laxumaa ñeeleen ñoom ñaar fi ibtidaa ihimaa ci seenu tàmbali warax fi ak ci siggi ga min xumaa ci ñoom ñaar waaw nee ñaari sujjóot la yoo xam ne booy tàmbalee sujjóot boo leen dee def da ngay wax allahu akbar booy siggi itam naa booy sujjóot rek mooy booy siggi wax allahu akbar booy siggi waxaat ko rek la ba jël ñaari sujjóot yëpp waaye yi itam li baamu attashahhuda taaya ja fil qabli ci sujjóotul qabla sama yusallim topp mu maanaam bu dee xabla bi xam nga da dem taaya ba asalaamaaleykum des ci nga door a sujjoot léegi nag boo sujjootee kon na nga waat taaya ja ndax salmal bi topp taaya fa imsihaa ndem juum na almaamoom maamoom xalfal imaam ci gannaaw ilimaan fa inal imaam naka ba yaxmilu ko na ko yenu xan ko waaw nee na boo àndeeg ilimaan boo juumee loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ci sujjoot xabla mbaa bax da ilimaan gàddu na ko la nga ànd nga moom du jar loolu nga ci jub aajoo nga cee def xabla mbaa baax na waaye sama dana war al maamoom maamoom ma saxwul imaami juumuk ilimaan ba wa in lam yasxu ak doon te juumut ma xaw ànd ak moom wala xadara te teewut saxwaxoo juumam ci am lu matu baraka moom sujjóot bu ko war rek war la doonte fekk woo ko de moom la rawee la ko def la juumoon sax gannaaw bi nga ñëw du teem war la bu dee def xabla rek nga ànd koog moom bu dee bu xadara nga bàyyi ba fay li mu rawee door koo def maanaam nag bu la rawee ba noppi nag muy def baax da yow nga ànd koog moom xam nga ne yow fayagoo lim la rawee waaw kon soo ko teyee mbaa ñàkk xam waral ko kon day yàqu su julli day yàqu su fekkee ne nag dangaa fàtte rek moo tax nga def ko kon moom su julli du yàqu faslun lii beneen dog la salaatul jamaahati jullit mbooloo sunnatun sunna la mu akkadatun su di suñu feddali waaw dafa wax ne julli mbooloo moom bu doon ci julli jumaa julli ga ca mbooloo ma farata lay doon ndax julli jumaa ma ne su ko kenn kennoo waaye nag bu fekkee julli farata googee nekkul julli jumaa kon ñu julli ko mbooloo sunna la soo xam ne taamu nañ ko lool dëgëral ko lool tey bañ nga julli yow dong bañ dem ci mbooloo ma ci ci loo xam ne sa coobare la amoo ngànt wala yaxsulu wala yaxsulu du am fadluha ngëneelam illaa bi idraaki rek xaatin dara ci jot ab rakka bi sajdatayha ànd ak ñaari sujootam nee nag li wax ni moom la jullik mbooloo gën a kenn benn addis ba wax ñaar fukki degré ak juróom ñaar benn ba wax ñaar fukki xaaj ak juróom waaye nag yaay addis yi soriwuñ ndax dañu bëgg wax rek ne ab xaaj daa gën a rëy degré moo tax degré yi mat ñaar fukk ak juróom-ñaar xaaj moom mat ñaar fukk juróom rekk yem ci lu ci mën doon nee na bala ngaa am ngëneel loolu danga fekke ci julli mbooloo ma ab rakk bu mat sëkk boo ci bëggee boo ci xasee fekkee benn rakk bu mat sëkk rek am nga ngëneel la du tee nag nga fekkee rakk yépp mbaa mu ëppale la rakk yu mu fekkee kookaa lay ëppale tuyaaba lu tax ma ne fa man koo xam ne adraka jot na rakk boobee lay suluxu de di ko ñeel ay yoo ay daxaa mu baamu ko fii jamaaxatin ci mbooloo oxraa meneen maanaam soo xasee am julli mbooloo benn rakk boo gisaatee meneen mbooloo itam doo ko mën a baamu ngir nga am nga neel ndax am nga ko ba noppi ka fekkee lépp la ëppale rek waaye am nga ko ba noppi wal jamaaxatu mbooloo isnaani mooy ñaar fa saaxidan topp lu ko ëpp dafa wax ne mbooloo nag moom mi ngi tàmbalee ci ñaar jëm kaw ndax kenn dong moom mu su ko jàppee mukk mbooloo faaw rekk ñu mat ñaar lu mu néew néew ba mu des ilimaani raatib ilimaani raatib moom bu fekkee julli na moom képp itam wecc na mbooloo loolu moom maase nañ ci moom dong bu jullee sax wecc na mbooloo waman salla koo xam ne julli na waxdahu moom rek aw lam yudrik wala jotut maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba rakxatal abraka kaamilatan bu aji mat fa inna lahoo naka ñeel na ko ay yoo ay daxaa mu baamu ko fii jamaaxatin ci meneen mbooloo nee bu fekkee dangaa julli woon yow dong julli ga sax baax na waaye yow dong la woon gannaaw boo gisaatee lu mat ñaar mbaa lu ëpp ñaar ñu julli taamu nañ nga baamu sa julli ga ndax nga am nga nelul mbooloo jullit mbooloo dañ ne gën na julli kenn ci benn addis bi ñaar fukki degare juróom ñaar benn addis bu ne ñaar fukki xaajoo juróom waaye lu ci mën doon rek julli ko julli kenn kon nag boo julli yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo danañ taamu nga baamu ca mbooloo ma ndax nga am gënalul mbooloo waaye su boobaa doo jiite ka nga xam ne julleegutoon benn yoon mooy jiite waaye yow soo jiitee ñoom dañ yàqule ndax da mel ni koy naafi la ndax jox nga sa war a taw noppi aw maxa waahidin wala ànd ak kenn ba tey nee na boo gisoon kenn képp koo xam ne jullee gu toon fekk yow nga jullee ba noppi mën ngaa àndal moom ngeen di ñaar loolu da koo teg ci li waxoon léegi ne mbooloo ci julli mi ngi tàmbalee ci ñaar foofu rek la ko teg waaye da am wuute wax ji gën a wóor bu dee kenn dong moom nga ànd ak moom ngeen di ñaar ko taxaw doon mbooloo ma mooman mbirum ngay maamoon maanaam mooy li ma wax léegi mooy kooku dee jiite moom ko julleegul benn yoon waaye yow mi nga xam ne julli woon nga da ngay naafila rek dangaa mel ne kuy baam rek ngir nga soo jiitee rek kooku du baax baaxle moom ka julleegul benn yoon mooy baaxle maanaam ka julleegul benn yoon rek bu jiitee lay doon baax daal naaw yéen mbir muy aji yéene bi daalika ci loolee ak da jooyal mbiram jëme ci yàlla maanaam ndegam julli woon nga julli nga baaxoon na nga dellu ko waat ay wax ne suñu borom jox naa yaari farata boo ci def muy saa farata rek baax na in kaanat dem nekk na tilka salaatu googee julli xayral maxribi dul timis wa kazalika ni alxishaaw gee baxda ci gannaaw wetar saxiixin maanaam nag am na yaari julli yoo xam ne boo xasee julli tam baax mu yow dong itam boo gisaatee mbooloo ma julli doo baax ma benn bu mooy timis timis moom boo ko jullee ba mu baax rek mu yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo lu tax nga mën koo baamu gee itam bu fekkee wetaragoo mën nga koo baamu waaye boo xasee julli gee bu wetar ba noppi nag gannaaw ba boo gisee mbooloo tam doo ko ci mën a baamu ndax li bi digle woon alayhi salaam ne seen seen julli guddi na ngeen ko mujjale wetar te wetar nga ba noppi loolu moo tax te boo bëggee wetaraat dal di safaanoog addis boo xam ne laa wetraani fii lay litin loolu moo tax boo ko see def gee ba wetar ba noppi moom doo mën a baamuwaat gee ngir mbooloo ba mën koo xam ne uqimat taxawaleef na alayhi ci moom tilka salaatu wooge julli waxuute moom fil masjidi nekk na ci biir jàkka ja fa innahu naka moom laa yabda ci googee julli wala xayriha du caageen moo xam day julli farata na boo toogee ci biir jàkka ji ñu liqaamal ilimaan fekk yow julli woon nga ba noppi julli gi julli gi koy liqaamal fekk na yow julli nga ko ba mu ne ndegam julliwoon nga ko ci mbooloo boole ca boo mën a ànd ak ilimaan ji baamu ndax nee nga woon amoo ko ci mbooloo ba noppi doo mën a toog rek julliwoo mel ne kon da nga koo diingat ci ak njiitam moo moo la neexut kon nga daal di gaaw jàpp ci sa bakkan mel ne ku bari daal di génn rek génn jàkka ji hmm. suñ dee taxawal ilimaan ji ak julli goo xam ne yow jullee ko moom faaw nga ànd ca fekkee julli woon nga ko te ànd mbooloo kon da nga koy baamu ba tey ngir nga am ngëneel su dee goo xam ne mënees koo baamu ngir day timis gi nga waxoon ba àggee gannaaw ba nga wetaree mbaa ci mbooloo nga ko jullee woon nag nga daal génn rek jàpp ci sa bakkan mel ne ko bari faslun li ab dog la shurutul imaamati sarti jiite tisxatun juróom-ñeent la maanaam kii jiite sart nañ ci juróom-ñeenti sart al awalu bu njëkk ba ak taharatu moo di ak laab falaa tasixu bu wér imaamatu man jiitu koo xam ne salla julli na mux di san mbir mu aji tojle mutahammadan mbir mu muy aji tey ko nee na boo jiitee te amewoog laab te yaa ko tey booba xam nga ne yow doo am julli waaye ña nga àndal tam tey gi nga ko tey te day tax seenu julli yàqu boo leen jiite woon defee ne am nga laab nag gannaaw ba ndekete amewoo ko moom ñoom daa baax baaxle yow rek yaay daal di wutaatu laab door a julliwaat waaye li aay rek mooy nga jiite leen xam ne amoog laab ba noppi nag teewul nga jiite leen su boobaa da nga yàqule itam ñu yàqule bu fekkee da ngaa def woon amee nga laab nag ni ki amee ngam jàpp daal lañ jiite ba sal ma dara fàttali kon amee woon jàpp ñoom daañu baaxle du jar du jar waat julliwaat waaye yow nga waat